waa ban ciment la. ciment du Sahel. Sahel. ciment bi gën. booboo yëngal jamono. ولا ولا الاخرى خليجي خليجي خليجي خليجي خليجي خليجي خليجي خلي خليجي خلي خليجي خلي خليجي خلي أرلين خليجي

xale yi président Lat Fal la yaa ngi aar xale yi président Lat Fal la yaa ngi bégal xale yi rakin ci di gis nas jëlale ci sama xale xale xale xale xale xale xale jëlale ci sama xale xale xale xale xale

Chers frères et sœurs, tâchons de faire la fierté de nos chers parents et de mériter toute leur attention et leur affection en travaillant très bien en classe. Monsieur le Président, directeur général, très énormément salariat, chers directeurs, chers parents, permettez-nous de profiter cette occasion solennelle vous souhaiter une bonne année de bonheur, une santé de fer et de très belles réussites dans vos projets. Que nos prières vous accompagnent. Amen. Alaïs, marraine des enfants, messieurs les directeurs, messieurs les conseillers, messieurs les chefs de département, messieurs les chefs de service, chers invités, chers collègues, chers enfants. nous sommes réunis encore une fois, par la grâce de Dieu, à cette cérémonie devenue un rendez-vous important dans le calendrier des ciments du Sahel. À cette occasion, il m'est impossible d'exprimer l'immense plaisir qui m'anime aujourd'hui à travers ma voix tout le personnel des ciments du Sahel réuni autour de cette grande fête annuelle de présentation de vœux de nouvel an et de distribution de cadeaux aux enfants vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Que cette nouvelle année soit pour nous tous une année de paix, de bonheur, de prospérité pour l'ensemble des travailleurs des ciments du Sahel ainsi qu'à leurs familles. léegi dama bëggoon ngeen déglu ma bu baax ngeen ñu waxtaan ci mbiru drogue. xam nga ne drogue musiba la te bari na lool ci adduna bi ñu nekk li mu yàq bari na li muy rey ci nit bari na li muy sonnal njaboot yi bari na te nag drogue bi amul xaj ak seen fu ne lay dugg bàyyiwul xaleel bàyyiwul ku am ak ku amul li kuy safar li kuy saafaral mooy di ko waxtaane bàññi ko nag di ci diisoo ak spécialiste yi ak képp ku xam ne am na ci xam-xam kenn kenn waru ci am luy nëbb nëbb luy nëbb nëbbal ba tax na maa ngi delluwaat di somb waajur yi ngeen ñu gën a farlu ci yar bi ñu war a yar xale yi ndaxte ëllëg xale yi moo ñu soxal loolu moo tax am na benn numéro téléphone boo xam ne dina ko sos ngir mu yombal joxolante bi ci sutura képp koo xam ne biir mu grave boobu dafalaal laal njaboot gi maa ngi ñaan yàlla suñu borom mu musal ñu musal suñu njaboot ci musiba bu mel nii drogue maa ngi leen di gërëm di sant jërë ngeen jëf de weneti ñu fekki de di xelal lu mu di taamu sima ban sima bi gën oh boobooy ban ci sima yi ñu ne bi gën a waaw seenu lii la ñuy bakkoo tendi lii la ñuy ngamoo gën a gën a wóor gën a gën say moom mooy sima askan wi sima bi bi gën a